على الذي سأدني حرما الحجام من كثيرة سلي والعباد الخمام من كثرة سندي والعباد والغمام فقل بسه توبات إلى ندم ziar mbokki taalibe ñu leen nuyu bu baax di leen siyaare tey ñu nekk fii ci Masaalikul Jinaan ñoo fekkee cérémonie de dédicace bi nga xam ne kenn si njabootu sëriñ bi di doom si sëriñ Muntaxa di sëtu sëriñ Basiiru Mbàkke di sëtti Cheikhul Khadim bind livre bu mag boobu nga xam ne jagleel na ko sëriñ bi ah ni ñu ko waxee rek mu mel ni nga gis léegi njabootu sëriñ bi li si ëpp léegi di borom xam-xam yu bëri dañuy bindaat di delluwaat ci sëñ bi ah, loolu day firneel ni te ñi nga xam ne doon na wax naan murit ay jaaxil lañ murit yi ay dof lañ tey ñi nga xam ne njabootu sëriñ bi rawatina ay sëtam tey suñu borom mi ngi leen taw feexale ñu bind ay livre yu am solo di ko jëmale waat ci Cheikhul Khadim kon loolu day nekk ab sant ah di di ñaanal njabootu sëriñ bi yëpp ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi yëngu ci wàllu xam-xam saa leen taw fexe xam ni moom képp koy uti xam-xam ci biti rek sëriñ Touba moom bind na lépp bàyyi fi kon nag bu ko defee ñu ngi di ñaanal bu baax di leen siyaare di bàyyi ngeen topp jotaay bi lépp lu fi rootee incha allah di si jot bu neex yàlla asalaamaaleykum ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان lii nga gis xalima yu bees yi di ko wax nag mooy doxinu sëñ Touba mooy li fi sëriñ bi def fi mu jaar ak mbooloo mi mu jiite maanaam leadership am ak son vécu son histoire comme lu mel ni Irwaaw Nadim wala lu mel ni Minanul Baqil Xadim nit ñu jàngalee sëñ Touba ni la tey ku mel ni euh, sëñ Xadim mi nga xam ne Ahmadul Xadim euh, di doom ci sëriñ Muntaqa kon di sët ci sëriñ Basiru ba tey noonu la wëlbatikoo di ñu jàngalaat beneen aspect ci Cheikhul Xadim boo xam ne da koo saraa ba mu gën a yaatu mooy leadership léegi nag li ci am solo dëgg-dëgg mooy àddina fi mu toll ñu bari dañu wax ni dañu am jafe-jafe parce que amatuñu référence wala problème mu leadership am na ci àddina kon dafa mel ni moom il apporte une réponse et une solution adéquate à un moment bien déterminé mooy sëñ Touba idéologie yi nga xam ne ñoo am ci àddina muy mën naa wax idéologie totalitaire yi mën naa tàmbalee ci ñoom muy nazisme muy euh, communisme mën naa wax ay idéologie yoo xam ne mooy totalitaire que cela muy démocratie muy dictature muy aristocratie muy yooyu dafay am njiit njiit boobu day am condition yu yuñ koy fale wala yu muy jëlee nguur gi yoo xam ne wuute na lool ak mbiru sëñ Tuubaa mii sëriñ bi li gën a jafe mooy yàlla mi ñu bind moo ko def ci sunuy xol moo defit ne jiitu gi mu jiitu naqariwuñu mooy amul opposition dans le mouridisme pro leadership boo xam ne nag ci àddina amul opposition amul kenn ku ne sëriñ bi kat jiite na ma waaye jiite gim ma jiite neexuma aw ma ci pexe di ko jëw loolu amu ci ba tey ñëpp a d'accord amul itam prétendance koo xam ne danaan bu sëñ bi jógee maay toog kenn bëggul mu jóg fi ne ñëpp bëgg mu yàgg fi ci kaawu ki fiy nekkal sëñ Touba amul itam ñaxtu sëñ bi kat waroon naa def nangam sëriñ bi kat warta def nangam sëriñ bi kat bu defee woon nii loolu amu ci loolu nag li ko waral mooy melow sëriñ bi d'abord nan la leader di mel sëriñ bi bim ñu wooyee ne ñu kaay leen nu dem ci yàlla dafa ne moom ca yàlla la jëm melokaani ku jëm ci yàlla la sëriñ tubaa jëkk yor mooy bépp coono boo xam ne warees na koo teg ku jëm ci yàlla mu tegoo ko ba noppi lu ko yàlla teg ci ay nattu ngir seet aw tolluwaayam nit yàlla yi dañoo baaxoo woon di muñ moom da koo sante mooy bis bi ñu jëm muy fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar bi ko yàlla jëkkee teg yen wi dafa sant yàlla kon loolu beneen niveau la waaye itam leader boo xam ne àndul ak mbooloom xeex ba jot la mu bëgg amul leader yëpp dañ naan ay samay généraux ak samay jegeñaale ay ca au front moom dane waa këram xaar leen ma mu dem liggéey liggéey bu sotti ba mu des lu dul payoor gi mu jàppal ñu bis bi mu sonnoon moom bisu noos màggal gi li nit ñi di wax yëpp euh, bernde ci ci xam-xam yooyu yëpp baax na waaye bisu noos la li ko dalee ci ginaar ba ci gëléem du lu ñuy diwoo du lu ñuy du lu ñuy xëppoo dañ koy lekk boole koog naan yu neex war nga woyof ak yooyu ngir santale ko yàlla boroomam mi ko tegoon coono yooyu yëpp ba desatul lu dul mu war ko fay mu ne kaay leen jël ñu koy jox alal alal ni mu toll ak ni mu neexee ci xol mu di ko fa teg ñëpp di ko gis mu wóor leen ne du ku ñuy auditer ndax dencul sëriñ Touba bis bi mu fi jógee la njëkk a wàññi xaalis bi ne ci këram. waaye mës denc xaalis bi itam ndigalu sunu borom rek la ciy dégg bu ko ci déggee jëfe ko loolu moo lay won ne problème yi ñu am ci deniers publics yeeg ay diw sàcc naa corruption ñàkk pas-pas ak ñàkk idéologie bu tol noonu bu dëgër bu jëme nit ki ci yàlla moo koy def ak yeneen ak yeneen woote ab dëkk nit ñi mën a jóg rek ñëw fekk si la maanaam kóolute gi murit yi wóolu Serigne Touba moo dëppoo ak kóolute gi mu wóolu yonent bi bëgg ko loolu bëgg bëgg yàlla ak yonent bi moo tax ñu bëgg ko mbëggeel googu moo tax sunu borom defal leen ci satisfaction ci seen leader mooy lu doxul xam nañ ne du sëñ Tuubaa ñun la yooyu yëpp nag boo ko jàngee màndaxe ko ak li xew ci àddina da ngay xam ne sëriñ Tuubaa fànn boo ko jël du ca morom rawatina nag lii ñuy def muy di bind ndax sëriñ bi dafa jëkk a tabe ca lam teddee mooy xalima bi mu yoroon way juram la ci jëkk a liggéeyal ba mu gërëm ko ci mu fab ko liggéeyalee ko xam-xam ba xam-xam gërëm ko mu di ci bind loo xam ne bu jëlatee xalima gi yonent bi muuñ mu di ko ci tagg ba yonent bi amatul sago ci moom mu di ci tudd yàlla di ko ci sant di ko ci màggal loolu nag jaadu na làmmeñ wu ne tudd sëriñ bi jaadu na xalima bu ne bind ci moom rawatina na nag ñi ko yaakaar tey ëllëg te damay wax ne am na lu ñu lebal lu ñu warta fay sunuy doom ak sunuy sët ñi ñu jiitu woon ñi ci bind ci sëñ bi bariwul te ñëpp ay lettre lañu ndax sëñ Modou Lamine Diop Dagana bind na Irwaaw Nadim euh, am na ñu euh, sëñ euh, sëñ Basiiru bind na waaye ñi xam sëriñ bi te binduñu ñoo ëpp kon lebal nañ ñu teraanga joo xam ne xëy na lenn ci kumpa seen diggante ak sëriñ bi waaye waroon warees na ko bañ a fay mooy ñun képp ku xam ci sëñ bi wenn araf wér bind ko ndax ku koy soxla dina ñëw loolu nag alhamdulilahi rabil alamin jamono ngi dox tàmbali nañu ko te mel na ni ñëpp ci sawar ñëpp ci bëgg day tontu itam ay laaj yoo xam ni laajoon nañu ko mooy yéen ay dof ngeen jàngu yéen xamul lii ngeen di def xel nanguwu ko tegu leen ko ci xel lii ngeen di def bu bu ngeen doon ay nit du ngeen ko def léegi nag lépp lu ñuy def ñu ngi koy dëppale ak tawxiid ñu ngi koy dëppale ak fiq ñu ngi koy dëppale am yàlla ba pare man koo nàmpal nit ci aw làkkam ndax nit bu xesee ba xam yàlla rek xam na koo xam ne dara circonscrire ko boo déggee it may wax xam yàlla xam ca dara la xam ne lii nii la toll jàppal ne loolu du yàlla kii nag mooy liggéeyal yàlla dëgg waaw bu ko neexoon sax way juram ñëw waaye tuwaarkàl la noo koy sant ci simplicité am di ko sant di xam ne lii kat bokk na ci màndarga yi wane Serigne Touba bi muy salaamaaleykum